asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sénégal mooy Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi di ziar di leen nuyu di leen baalu àq bu baax a baax ci euh, tabaski bi ñu jógee di ñaan yàlla lépp lu ci ngëneel ak xéewal yàlla sotti ko ci réew mi waaye ñi ci biir réew mi waaye aussi ña nekk ci bitim réew te uti rek yóbbu leen fa te yàlla na ne yàlla delloo si ak jàmm ci seen njaboot ñi ne si kaso yi suñu borom oyofal. fi jógee yàlla xare leen ay jana waxtu di benn message pour les sénégalais wax leen lan mooy njëriñu assemblée nationale waaye dem voté ji pour président bi fi nekk am majorité bu yaatu ci assemblée nationale euh, lii opposition bi di wax li ñuy wax mooy ñu ëpp ay député ñoom fële ci assemblée. loolu lan lay jur ci Sénégal li muy jur ci Sénégal mooy réew mu bloqué réew moo xamante ne du dem du dikk dafay bloqué loi bu ñëw assemblée nationale pour bourse familiale yi ñu bloqué ko loi bu ñëw pour dimbali ku feebar mu faju dañ koy bloqué loi bu ñëw pour wàññi dund dañ koy bloqué loi bu ñëw pour tabax hôpitaux wala tabax leneen ak leneen defal loo xamante ni ci askan wi la ñëw dafay bloqué parce que dañ koy bloqué ñoom pendant ñaari at bu boobaa lan lay jur ci réew mi mooy xiif mar rafle coono bu mettee métti lay jur ci askanu senegal ci ñoom lan lañ ci jublu mooy sonal sénégalais yi ci loolu ba tax ñu mere Macky mais du sonal Sénégalais yi pour seen intérêt mooy sonal Sénégalais yi pour ñu ne Macky Sall la loolu nag ñu ngi koy wax mbokki Sénégalais yi ñiy dem ci urne yi pour voter benn bulletin moo fa gën a wóor te wóor lool muy bulletin bu marron bi am bopp fas bi ñu bind ci Benno Bokk Yaakaar boo mënu liir mooy bopp fas bi ndax moo nekk bulletin bi nga xamante ne mooy tax. lépp lu la Macky Sall dig mu mën koo def mu mën a yokk bourse familiale yi waaye mën a tabax hôpitaux yokk leen mën a yokk tali yi mën a yokk lim fi def waaye aussi mën a aussi ñoŋal sécurité réew mi mooy réew mi Sénégal am jàmm ne di am jàmm ndax réew bu am pétrole la te ñu bari ñu ngi siiñ pour taal Sénégal rawatina ñi ne ci biir biti ñi ne ci biti waaye aussi ñi ne ci biir réew mi bu ñu sañool Sénégal tàkk ndax dégg ngeen ñu wax ko waxati ko. kon askanu Sénégal bàyyi leen xel ci élection yi am na solo lool votelu leen pour Macky mais da ngeen di votel pour seen réew pour jàmmi réew mi waaye aussi pour li nga xamante dafay ñoŋal li nga xamante ne moom la Sénégal am muy pétrole ak gaz bi képp kuy wax naan Macky Sall ku votel benn Bokk Yaakaar da ngay votel góor jigéen ñi loolu yàq wax la wala yàq xel la ndax. gën a wóor te wóor Macky Sall wax na ko fukki yoon ak juróom-ñett tant mu ngi nekk président de la république fii góor jigéen du fi am li bëgg. wax na ko ci télé français yi wax na ko ci àdduna bi wax na ko Amérique wax na ko fu ne waxaat na ko barki démb ci lu wóor te wér ñëpp teg seen bëpp waaye imam yu bëri génn rafetlu ko ne dañ ko ciy jàppale bi Idrissa Gana Gueye amee jafe-jafe ak góor jigéen yi France Macky Sall moom moo njëkk taxaw défendre ko. kon kooku du défendre góor jigéen kon mbokki Sénégal delloo si waat nit ñi dafa jaadu ci manipulation ñi am dañ leen di manipuler ci kàcc ak i fen ci loo am te ne tegul fenn lu dul seeni intérêt bopp ndax nag ku bëgg Sénégal doo jaxase Casamance doo jaxase Kolda doo jaxase Saloum doo jaxase Dakar doo jaxase keneen ku bëgg Sénégal da ngay boole Sénégalais yi nag ci boole Sénégalais yi nekk moo tax voté Benno Bokk Yaakaar muy lu lu wóor te wér ñu war koo def kon maa ngi ci woo Sénégalais yépp bu le 31 jotee nañu dem massivement woteel benn Bokk Yaakaar pour jàmm réew mi waaye pour aussi président bi fi nekk lii ngeen teg seen bët mu yéem leen lool am na leneen lu mu denc lu gën a yéeme loo xamante ne da koy def ci réew mi maa leen di gërëm di leen sant.